leen dem wuyu si ndax dañuy ay amateur di dund làmb bëgg làmb tëgg nag bis bu rëy muy diggante Batista ak ki nga xamante ne mooy Boy Sadio numéro 2. waaye nee naa la combat des amateurs muy Bib Diop gone yëmbal bi gone naataange gi bu jógee ñëpp dañuy jog bu jógee kenn ko ñëpp koy topp mu war a daje ki nga xamante ne muy bébé Ama borom kër Mbaye Fall waaye bébé Ama yóbbante na ma ci moom. dama koy jox mu nuyoo su nuyoo pare ma wax ko yóbbante bi nga xamante ne bébé Ama yóbbante ko bi Madu maa ngi lay nuyu di nuyu journaliste yi di sant yàlla baax di julli si yonent bi di sant samay ñaari waajur du nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Saad Bou Cheikh na Cheikh Mamadou Fadal nuyu sama wasila Serigne Bassirou Diop du nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn surtout waa yëmbal fii ma dëkk waa naataange tous ay se bu nekk yëmbal maa ngi lay nuyu bu baax loolu laa jot nuyoo di bëggee ñëpp di nuyu journaliste yi nii déplacement bu ñu def yombul tey ay champion yu mag ñu ngi open presse ma jaral leen déplacement si man mu ndaw mi maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm yee di bëggee ñëpp yooyu. Bib Diop ngay dajeeg xale bi nga xamante ne muy bébé Ama mu jóge kër mbay Fall ndax keroog bi ma fi ñëwee wax naa la ko nee naa la bébé Ama nee na defeta ko booleeg yow mais dina la nangul sa champion. ndax boobu ba tey nee na laaloo suuf waaye moom moo lay nekk ki nga xamante ne mooy mbër bu njëkk bu la laaloo suuf ndax mer la fanaano ay meri meri mer la fanaanoo waaw bébé Ama maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay nuyu bu baax ndax li ma defal yombul jafe woon na am adversaire nga jël ma. mais yaakaar naa moo nekkoon sama dernière position moom pour ma bëree moom xëy na nag yàlla tudd pour ñu bëree la kat te incha allah rek maa ngi ñaan yàlla may ma ndam la kat ci kawam lépp lu mu wax nag na xam ne bu bis baa wu ko jëfeewul man dinaa ko jëfee loolu laa sekk ak moom. yee. arbitre bi bu kan mooy diriger moom wala yow. xale la maay diriger xale la te xale la yàlla àndal. noonu la demee nag. mais Bib Diop dañuy gis chaque fois da ngay tromper say adversaire ndax Bib boo ko xoolee da nga naan kii dafa ndaw waaye mbër mi bu sëmee ko ba tuuroo soo mi dongale ñu ne ah jàmbaar ji ñëw na. waaw loolu waa Bosco Sow ñoo ko liggéey si man damaa nekk xale nekk si écurie bu baax ñu may liggéeyloo di ma entraînement lu jaar yoon kon tey lépp luñ may teg ma koy tegoo rek sama morom bu mu mënti doon su ñëwee su ma ko jàppee mën naa la daan ba ba ama sax ndax maa ngi bëre ñu ko ëpp Bosco Sow na seen a seet mais ñu gis ni Bib Diop sa combat doo xeex da ngay woo adversaire bi ci xeex. su ñëwee ci bu ñëwee ci xeex mi rek nga daal di bàyyi xeex mi jàpp ko daal. woo si xeex duñ bëgg xeex bi ñëw jàppante ma jàpp bëre. non est-ce que yow yaay dawal stratégie. non non man am ma problème boobu xeex laa gën a mën ku ñu fayal ngay xeex kay su la sa morom wooyee ne la kaay xeex di nga xeex. Bib Diop nee nañ fayaluñ la nga xeex de laaj naa waa koñ bi keroog. ana ku ma fayal sama nii nii ah, ma lu bari xaalis bari la ma fayal doxo faali maa joor maa joor xaalis bari la ma fayal fayal ma box may xeex chaque jour kon tey ji non ama day xeex mais combat bi nañ cee gis xeex Bib Diop da amateurs yi nee nañ combat bi dañ cee bëgg nga xeex ci cinq minutes noppaliku trois minutes ngeen bëree ci loolu la ma amateurs yi yóbbante waaw ah, loolu du problème lépp lu ma woo rek dinaa ko ndax xale laa jàng naa li may jàng yàlla am na lu ma ci lu mu def sama xel mu mon ko lool samay kot su jàngal ma ko ba mu mën ko kon su taxawee dëggal boppam bu soobee yàlla na nañoo xeex combat bañ a yàgg incha allahu rabi. fan ngay waxee si bu taxawee dëggal boppam ndax nee na day taxaw dëggal boppam. waaw na taxaw góor la góor laa góor nga góor laa taxawal dëggal sa bop mu xam ni bébé ama góor nga góor laa taxawal dëggal sa bopp nga xam ni kot su pap jàngal naa ko ba ma mokkal noonu la demee nag. bi la entraîné ko. aywa da nga am bis. doomu nee ma waaw. Ah. Ah. ama mbër la comme yi ma doon bëreel. góor la comme góor yi ma doon bëreel duma yi métti. loolu la def dàq. waaw waaw dëgg bu ma xoolee ci say interview yëpp da nga naan Amadou dossier Amadou dossier mbër ngay jàkkaar lool mbaa yaa ngi sóoraale loolu bu soobee yàlla dinaa ko jox cër bu mat sëkk lu mu indi fekk ko fi bu dee doole dina ko fekk bu dee bëre dina ko fekk bu dee xeex dina ko fekk sa attaque sa koñ isa gañ noonu la demee nag lépp damay waxaat rek bis bi bi bisu la kat mi bu bisu amateur yi ndax góorandoo yóbbante na ma nee na naa wax ñëpp ñi nga xamante ne ñooy mbëri bi mooy seen premier journée nañ ñëw jàppale ko bu baax a baax a baax xale yi jënd bloc yi waaye nee naa la su ma ñëwee fi sànq damaa dama damay nuyu ki nga xamante ne mooy Balla moo fi sama xarit Balla maa ngi lay nuyu bu baax baax baax baax a baax waaw Madou waaw góorandoo damay woote nag di wax góorandoo yi lan ngay dama kaa ameel bor di woo waa yëmbal waa góorandoo yi président des amateurs ak amateurs dama leen amel bor waa yëmbal mobilisation bu metti laa bëgg bu metti bu xajul arène nationale loo xam ne grand combat yi sax ñu ko faa dugal incha allahu rabbi damaa bëgg mobilisation bu mat sëkk waa yëmbal nañ génn ñu jàppale ma ma yóbbu mobilisation bu mat sëkk xale yëpp génn dem stade xale yi pare nañ noppi nañ amateurs yi duñ merci man incha allahu rabbi dinaa indi mobilisation dinaa bëri dinaa daan wu neexee yàlla suñu borom incha allah waaw wooteel wooteel matu damaa bëgg ngeen jël lii ngeen xam ne yëmbal arrière tuuti nga xool caméra damaa bëgg damaa bëgg ngeen jël lii ngeen xam ne Bib Diop naataanga la dëkk doomu naataanga la naataanga la juddoo naataanga la yoroo mais ay see yi ko wër xale yëpp a bëgg moo waral ma defar lii pour jàllale ko ñëpp ñu xam ne ñëpp nañ ñëw ay see bàyyiwuma kenn waaw jeex na tax jeex na tax yu jóg déglu yu na ASC yëpp ñëw ah ASC yëpp nañ ñëw ah. combat la combat bi combat yëmbal la da waa yëmbal ñëw tous les ASC bu nekk si ginnaaw maa woo di bu mat sëkk laa bëgg dem arène nationale samedi bëre daan ñibbisi incha allahu rabbi da day am bu neexee yàlla allah di woote nag di woo waa Moussa le maire Bara Gaye sa doom mi lay woo Amadou ot maa ngi lay woo bu baax a baax si combat bi di woo waa Yëmbal gise Guissé sama grand bu baax maa ngi lay woo si combat bu baax a baax di woo nag solo baari ndaw yi ak solo baari mag yi di woo bu baax a baax waa gétt gi waa gerte gi doomu yaay booy waala yi maa woo waa Sam-Sam une deux di woo ñëpp mafia Balla Mbam bi mafia Balla Mbam bi mafia Darancé bi mafia Kiruku bi mafia ñoom Fadja bi Amet boo yëpp maa woo mafia Turbo bi Turbo sama rakk xale la mi ngi ñëw leen ko xel Turbo mi ngi ñëw sama rakk bàyyi len ko xel xam nga génération lour maa ngi leen wax ngeen taxaw bu baax non stress maa ngi leen woo si combat bu baax a baax a baax di woo village yi may ñaanal yëpp village yi may ñaanal maa ngi leen di woo maa ngi woo waa Pout Jabaas Mamadou sama papa sama lépp maa ngi lay woo. Mamadou Sène maa ngi woo. Thiam jàppal ma jàpp. mouvement bi. ci yëmbal di jàppale ndaw yi maa ngi lay woo. Mario Mbaye séeri ndaxte maa ngi lay woo sama xarit. sama doomu ndey xama sama doomu jabaas pour jabaas maa ngi leen di woo waa Njar. waa Njar maa ngi woo Serigne Baye Dia Serigne Baye Dia maa ngi lay woo bu baax a baax a baax. waaw Bala Bala may ma loolu ma loolu ma ñëw. waaw di woo ñëpp. <laughs> bàyyiwuma kenn waa yëmbal sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp santal ma kiriku bu baax sama kiriku sama doom kiriku sama xarit bi sant naa la gërëm naa kiriku sama doom waaw santal Balla santal Balla Diop borom kër Ngumba sama xarit maa ngi lay wax nga taxaw bu baax ci combat bi du nuyu Baye Galas Baye Mbène sama mag sama lépp lépp moom la du nuyu mbëri nekk yëmbal yëpp côté côté moo indi léegi léegi ndugg bi na luñ war a añee ñëw na di wuy sant mbiiru mbiiru maa ngi lay sant bu baax a baax kiriku matu nee sant na la di sant bas sama mag sama lépp lépp moom la kii ñëpp bàyyiwuma kenn ay Pa Faldo tous les Sambour da yëmbal tous les leaders tous kon rendez-vous le 4 mars